bëgg a ñun sëriñ bi salaamualeykum mbooloo mi yépp a ngi lay nuyu du la ziyaar mu ne wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu cheikh alhaaj ah, ah, malik ibnu cheikh cheikh alhaaj mooy nuyoo mu ne bi ma jëlee kàddu ci oustaz ibrahima mahmoud jóob léegi mu ne dafa kontaan bég xolam sedd mu ne ndax Oustaz Ibrahima Mahmoud seen mag la seen doomi baay la waaw bismillah dañ ko doon def bi ma euh, ko jëkkee gis hmm. Hmm. mille neuf cent soixante mille neuf cent cinquante mu ànd ak cheikhul islam Haaj Ibrahima Niass fekk man dama jàngi boobu maa ngi jàng maqamatul xariri ak ak ak ak ak ak duréy ah ñu ne ma kaay wuy ñu ma kaay wuy mu ñëw fekk Baye Niass nekk dafa ñëw di ko jaale si cousin bu gaañuwoon moom góor gala jabdu ah ñu daal di nuyoo mu ñëw mu daal di wax xaj ma ñu nuyu sa pap xaj si Ibrahima ñu ma dem jox ko loxo ma ne gis maa ngi gis koo xam ne bëggoon naa gis ndax sopp ko bi ma ko nuyoo ba pare ba eh, daal di dellu toog ci yor mu ne ma daa continué nuyu nuyu kooku sol jalbab bu weex ak ak ak ba eh, xalan soo maghrib bi yëpp kan Mouhamed Xam boo ba na ba na gaar Mouhamed Xam si baram daan jot ma jox ko ko ma nuyu ko eh, mu ne ma kii sa doomu baay la sa doomu papa Mahmoud Diop la mu ne ma pappaam ak man mi jamono yi ma yàggee Kaolack ci sëriñ Babacar sa baay bu baax ba suñu mag suñu sëriñ am ku wax ne dafa bëgg ma may ko ngan sa maam Alxaaj sa maam Abdul Hamid Kan ah sëriñ Babacar may ma ndigal ma dem ba ca moom am Kaolack defe na ñaari fan ñett sama Abdoul Hamid kan téye na ma lu war a toll lu jege ci lu jege daal ci weer yu bari mu ne ma nag moom mooy doon mooy mooy sa mag sa doom baay la mu ne ma papaam nag kaana zaakiran awwaahan lillaahi taala mu ne foo ko gis loxoom mu ngi ci poche am kurus la ci yore di def zikrullah zikrul madad wa istimdaad moo xam ca marché wala moo xam fu mu mën a nekk daal laa yashghaluhu zikru an shay'in axar dogal nak li nga wax léegi sa sa maam Abdou. bés nak ñu tok ci po mandir fi euh domam di sama soxna di di soxna sa fetu euh ne ko pap kenn ne ko ban ka dama fekk ci saal bi. babu Lamine Niass ak Barham Diop mu ne na bàyyi len ñoom nañ ñëw nañ ñëw. daal di ñëw lu ko mu mu kontaan kontaan bi rek daal di def moom chaay la. rek daal di sadd aw ñaari bayt ak ñoo ñett yi sax indi ko barhaamu barhaamu inni la mushtaqun li ru'yatihi li tuuli ahdi bihi بشرايا لقياه كفاه فخرا وعزا والسيادة عن شيخ المشايخ في الإسلام رباه mu doon loo xam ne nag dañ ci bégg bégg bégg ba nga xam ne fekk man tam boobu maa ngi daan dégg baraam ji baraam ji mosuma ko gis yàlla dogal nag ñu mujj xamante bu baax a baax a baax Barham Diop ca xam-xam ba ca wàcc ga ca woyof ga xam-xam bu sell bu leer ba macha allah maa ngi fàttaliku bis bi mu gaañoo keroog darabtu dumuan gaziratan bi shiddati hadihi alwaqaa allati fatujiut biha والنكبة التي أصبت وأصيب العالم الإسلامي بها يلا دوغل ديسان مدم Euh, ma ne damay jubal léegi Kaolack bi ma yeggee Kaolack euh, euh, bi ma yeggee Kaolack si bi te dama dajeeg Seydi Abdoul Aziz suñu mag ju tedd ju baax ju di génn biñ ko dencee ba pare ci bàyyi nekk waaye mi ngi jooy ba mënul téye boppam ma ne ko si mu ne ma si dafa mu ne ma kii li ñu ñàkk dafa rëy muy bésu àjjuma nga xaw naaj nga xaw tàng ni tu ay boobu trois heures et quelque dafa génn wala trois heures bu ñu kel daal tuuti loolu rek laa bëgg a seede boo nee na Barham كن لا تيجي يودان قتوى الدروس الرمضانية التي كانت تنظم في القصر الملكي العامر يبكي دي دون حسن دو علماء مغيب دنكو فوق دنكو تك تكو دنك مم بمكو جيكي جسنا كيرل بمكو كير مانيو بابا لمن مانو نياس ماكو نياس بايشام باري ونانيو باري ونانيو ماحي نياس الخليفة الحالي وسودان نيوكير الافارقه لا اقول السنغالي وحدهم كانوا يفتخرون بقدومي الى القاهره بني دم صحبتي ام بني بوغيس فرهام جو لولو هذا دين عليه يجب علي الوفاء به هذا الدين بني كنت تدرك بانج بيت بانج كونتان سوبو كولول يالنو يالا دولة تاتي باركم اك بارك الشيخ الاسلام ak barke euh, euh, mag ñëpp daal. dama dégg benn benn yu ñu daan wax ne dañu hmm. am dañu am ñu naan seexul islam bàyyi ñëw seexul islam. Hmm. mooy wax bi soof ma ndax man. Hmm. lépp luy jëmee ci par parloog yàq du neexuma man Maodo si wallaahi waaw. am ma am occasion nag ndax ñu bari ñu ma gis ci ñu ma gis ci ñooñu dañu teew ci sama salle fii ci point ci virage. ma ne ma ne ah di dem ba ma ci ma dugal sama soxla ma ne ah Baraam Diop dégg naa ñu naan ñu naan tuna Baye ñu cheikhul islam cheikhul islam ma ma ne ku ma ku ma gën gën leen xaw ma nag keneen moom ma gën moo leen gën yéen ñu toog man ci saag muy cheikh El Hadj Abdel Dabba neen nee na ci baraham kafaahu faxran wa izzan wa siyaadate an al cheikhul bi bil islami rabbahu axi wa xabibi wabni uxti هذا الذي هذا التدخل

waaw kon bu fàttee sant bokkoon ñun ma ne ko bokkoon laay waxal ni ah, dëgg la dëgg la ñu ngi ñu ngi dégg bu baax maa ngi si maa ngi nuyu mu ngi dégg waaw mu ngi lay dégg sama rakk bi teen ak yow mm-hmm. sama rakk sama xarit sama soppe macha allah mm-hmm. bokkaat daal ñu lay sant bu baax a baax jërëjëf si di la baax a jërëjëf si yow wàccagul si jërëjëf jërëjëf yàlla madallahu fi umrikum al mubarak bi mawfuri sihati wal afiya si